ko li ko waral daal duma ko tuddee sax foire damay wax naan chapiteau de fortune yi nga xam ne moom la maire bi di teg ci kanamu marché bi bu événement jotee te ku nekk xam na ne marché HLM léegi képp kuy jënd bu événement jotee boo ne ko HLM mu ne la doy na am na fii sama benn xarit dafa maye benn tissu ki mu ko may dane ko duma ko jël si HLM parce que duma am fu ma dugg HLM li ñuy jaay ci biir marché bi yëpp ñu ngi ko jóor ca kaw taliba te ña ko fay indi dañuy importer ay conteneurs comme ñun ay conteneur la ñuy importer jugee koo ci région yi jugee koo centenaire fu nekk pour foire HLM léegi commerçant yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom 24 heures sur 24 muy taw wala muy neige ñoom ñoo fi nekk di fay seen i impôt di fay taxe CGU di fay juuti di fay taxe publicitaire OVP yi kenn xamatul maire da yokk ba mu cher su ku mu fekkoon ngay fay 60 000 OVP annuel fi yaa ngi ci 480 te commerçant yi ñi ngi rayante di ko fay yërëmun ñu ci benn côté kon li nga xam ne xañ mair bi daal tali bi moom HLM ku fi dugg gis na fii suuf rek a fi nekk defarut tali bi defarut fi dara amalut njariñ commune bi waxuma marché bi de mais commune bi ba mu daj maire bi amalut ko njariñ Euh, kii def foire bi benn promoteur la xaj na bu ngeen jegee monsieur le maire moom dana leen wax kan mooy def foire bi ñun moom xàmmewuñu kii def foire bi ñun li ñu xam mooy sunu marché moom lañ bëgg aar moom lañ bëgg a sàmm marché bi moo ñu ñor parce que maire fee mu toog fa tey bële du fa jog mukk doomam toog fa du fa jóg jarbaatam toog fa ñun nag sunu place yii ñoo ko moom ku fi jugee ko yàlla tere sa dooma koy doon wala sa jarbaat wala sa mbokk kon nag ñun lu ko jaral pour teg foire bi war nañ ñu koo jaral pour foire bi jugee koo fi waaw. ñoom. waaw ñoom dañu ñëw ñun dañu defoon su dañu wax ji sax fi mu déparé dañu demande defaan benn demande d'autorisation au niveau de la sous-préfecture ñu rejeté ko ne euh, dañuy def trouble à l'ordre public sur avenue Cheikh Ahmadou Bamba ñu ne leen ñun de bàyyi nañ sitting bi mais nag ñoo moom suñu marché bu ñu xëyee danañ tëj marché bi toog ci suñu biir marché def suñu point de presse yéebaane maire bi ak ki ma àndal def bi ba autorité yëpp yëg ko nit ñi dégg ko bu ko defee ñu mën a dem ubbiwaat suñu place yi bi ñu defee loolu nag nekk di def sunu point de presse maire bi yebal Thierno Ndoye ak ku ñuy wax commandant ak benn ASP ñu ñëw di dajji port marché central bi marché bi ñun ñoo ko moom ñun suñu jaayee suñu poste lañuy dugal ñoom versé wuñ leen kon naka la ñuy defee suñu point de presse ñoom ñu ñëw di dajji marché bi loolu ñu koy bàyyi ci loxo autorité bi parce que ña fa demoon teew nee nañ commissaire bi ñëw na ba gis na ña doon danañ def suñu constat huissier suñu defee suñu constat huissier bu ñu paree danañ port plainte xam nañ ki ñuy porte plainte Thierno Ndoye la duñ def contre plainte contre X Thierno Ndoye la ñuy porte plainte directement waaw li ñu mën a def wax nañ ko dañ ciy dellu siwaat mooy saa bu fi tegee foiram bi danañ tëj marché bi dem dindi mbaar yi dañuy tëj marché bi dem dindi mbaar yi kanaa déggoo wolof loolu la ñuy def ndem soob na yàlla incha allah rabbi